Mamadou Thior ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay Fatou. yow yaay njiital CORED di conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie ñu am mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. ma am mbégte ci Rewmi FM. Mhm. ànd ak yéen Fatou ci matinal. jërëjëf alors Mamadou Thior li ñuy waxtaanee tey mooy euh, seetlu nañu fan yi ay euh, icône di ay journalistes yu mag dañu fi bàyyeekoo loolu waral nag ñu bëgg a dellusiwaat ci métier bi ak ni ñu koy defee euh, ñi fi nekkoon démb te tàmbali fee jugee bu ñu xoolee la taxoon ñu ciy xeex euh, méngale ko ak tey ni yëf yi doxee ndax yow mën nga jàpp ne ñooñu am na ñu mbégte ci la waraloon ñuy xeex démb. waaw Fatou xam nga li nga wax sànq si si kàllaamay nasaraan icône euh, moom la lay ab icône maanaam mooy mbër kaamil si wolof mm, mm. Euh, te ñi nga ñi nga xam ne ñoo fi génn ñu tàmbalee ko Kader Diop teg ci Babacar Touré ak li nga xam ne mooy Reine Marie Faye si loo xam ne motul fukki fan ñetti mbër kaamil yoo xam ne si wàllu métier bi ñuy def génn fi Euh, ñooñu du ñu ñeexum ñebe parce que boo xoolee ndeysaan bi ñu fi génnee mm-hmm. dégg ngeen leen askan bi euh, séedal ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si métier bi mm-hmm. euh, muy wone ne gis nga li looy def lu ne mm-hmm. bul nangoo nekk ndaare te ñoom nekkuñ ca ndaare parce que wone nañ taxawaay bu bu bu bu mot taxawaay boo tàmbalee ci carrière bi fi njëkk a jógee hmm. carrière euh, Diop moom euh, rajo Sénégal jaar na fa donc euh, def na rajo ba jeexale agence parce que agence France Presse moo moo leen toogaloon fii ci Ndakaaru hmm. loolu lay wane nag journaliste boo ci duggee da ngay nekk laal fii laal fële maanaam bul rek ne lenn rek lay def parce que loolu lool sax baaxu si ne hmm. yenn saa yi li ne di lekk euh, ceeb <laughs> euh, altine ba ba dimanche ba dimanche kon kon donc loolu day wane ne bon taxawaay bi rafet na hmm. Babacar Touré tam bi nga xam ne euh, gis nga ba nga xam ne dem nañ stage soleil lañ leen jàngal ses si hmm. bañ fa demee gisuñu Euh, lañ leen jàngal foofu parce que soleil euh, boobu ba léegi euh, bon lu neex nguur gi lañ fa doon wax ci jamono moo ne am na sax ay coppite yoo xam ne quand même il faut que ñu nangul leen ko hmm. donc ñoom ñu gis ne loolu jëmul kër ñu sañ sañ seen daara ba gis na tey li mu indi hmm. ñu bañ si seen waar Sud FM bañ ko sancee dañ ci teg juróom benn at première alternance bi am hmm. ren Marie fay gis nga mu jógee RTS dem Walfadjri dem dem Sud FM ak yooyu parce que aussi tam gëmoon na ne bon man na dem bu jógee RTS na dem euh, xam-xamam may na ko. Mhm. mu dem bu demee si privé bi war na fa mën a euh, continuer métier bi te gis itam te la gën a itam feeñ parce que nit ñi gën nañ koo xam fi euh, Walf ak ak ak Sud bi nga xam ne jaar na ko. Mhm. teewul moom mu dellu si waat RTS. mu dellu si RTS di def présentation ba noonu muy dem à la à mhm. euh, donc loolu day wane ne métier bi quand même la boo xam ne faw ñu bàyyi xel ne euh, man nañ ko di ko def ba à la retraite. Mhm. Euh, ñu bëri si ndaw yi tey je que xaa xaaratuñu ba à la a génn. rédaction mag ñi tamit dañuy teel a génn te ñooñu waroon nañu mun a toog encadrer aussi ndaw yi parce que ñàkk encadrement boobu tamit dafay feeñ ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy tey. waaw wax nga dëgg xam li nga xam ne mooy ni gën a féete mag euh, maanaam métier boo gis rek ak loo ko jàng si école boo ñëwee quand même war nañ la mën a encadré mm. encadrement boobu si rédaction yi lay amee mm. te loolu dañ ñemeeku ne ñi ko war a def daanaka toogatuñ fa mm. parce que boo xoolee rédaction euh, organe boo ci dem tey pour nga gis ko am ñeent fukki at juróom fukki at moom jafe na léegi daanaka ñi am juróom fukki at nga fekk leen ñuy continuer di nekk ay journalistes si si rédaction yi lu néew a la te moo ne ñooñu ñoo war a encadré ñi doog a dugg si am peut ñaar fukki rek juróom ñi fanweeri at encadré leen tette leen ba ñu gën a mokkal métier mais li nga xam ne nag mooy moom lañ ne meeku mooy bon loolu euh, ñi gën a féete ñi xaw a gën a féete euh, mag si wàllu at at daal euh, daa daa mel ni bu commencé ci rek buñ gisee occasion boo xam ne moo gën si li ñu nga xam moom lañ jàpp ñu bàyyi fa métier bi dem defi leneen te loolu itam li ko indi mooy que ne suñu métier bi nag ay la yoon dafa desandi ci wàllu euh, ci payoor bi nga xam ne euh, ñu ngi koy fay nit ñu bëri surtout ci wàllu ñu nekk ci euh, presse privée bi. Hmm. loolu est-ce que am na peut-être lu bees ci code de la presse bi ñuy xaar ñu appliquer ko loo xam ne ñëw na pour saafara ko. waaw loolu convention collective des journalistes moo moo koy saytu. te euh, ay lay yéwén euh, dox nañ ci ay euh, tànk ay jéego ay jéego yu rëy parce que fexe nañ ba négocier convention bu bees si njiital SYNPICS ba convention boobu dafa gën a yokk payoor bi nga xam ne moom la ñuy fay journaliste parce que convention bi fi nekkoon daanaka amoon na bu mujj bi amoon na lu ëpp ñaar fukki donc xam nga tey lu am ñaar fukki dafa mel ni dem na bi jamono raw donc ñu gën xoolaat daal payrool bi nga xam ne moom la ñuy jox journaliste yi mu gën a ñoŋ euh, te ci wàll woowu atum 2019 lañ ko waroon a appliqué mais atum 2019 surtout ñi nga xam ne ñoo féete ci presse privée yi mooy patron patron presse privée yi ne pareeguñu ñu defal leen li nga xam ne mooy moratoire moratoire maanaam ñu ne leen may nañ leen at boo xam ne ngeen defaru mais li ko tàmbalee premier janvier deux mille vingt a commencé appliquer am na ñoo xam ne euh, mais bëriwul am na ñu ko commencé appliquer mais ñu ci bëri surtout presse privée bi parce que presse service public bi ko ay RTS ay Soleil ay APS quand même nañ ci lu bëri si wàllu payor côté boobu moom gàcce ngaalaama mais presse privée itam am na ñoo xam ne ñu ngi euh, comme ay. ay euh, groupe Futur Média ak yeneen groupe yi ñu ngi góorgóorlu mais ñeneen ñi dañu war a roy ci ñooñu parce que métier bi quand même euh, a nga ne naam da nga fay ne. Hmm. nit ki mënul di la liggéeyal te bon euh, bu weer bi dee lang koy jox du dundal njabootam loolu day tax ba métier bi tam nit ci nit ñi dañ ci toog parce que boo gisee lu gën li nga xam ne si li nga jàpp ne da nga da ngay da dem hmm. parce que doo doo liggéey ci ci ci am na solo alors ñu ñëw nag ci euh, ndaw yi nga xam ne ñoo nekk tey di def métier bi yow mën nañ laa boole euh, ci ñi nga xam ne ñoo ci bokk nekk mag tey boo méngalee li ngeen daan def démb ak tey li ndaw yiy def lan ngay gis. <coughs> waaw euh, da ngay xool ne da xool ne li nga xam ne mooy ndaw ñi dañuy gaaw a am ñuy wax gis seen bopp. Hmm. parce que métier bi dañuy métier boo xam ne yàlla dafa la may ngay dugg si kër kër kër jàmbur. Euh, saa su ne. Mm. ci que ñoo xam ne euh, ñoo la mm. donc euh, bu dee da ngay gaaw a gis sa bopp te du métier boo xam ne il faut que ñu gën a delloo seen xel. woyof parce que. waaw métier métier la boo xam ne. Euh, mën nañu wax waa góor tey bu subaa ñu xarab la. Mhm. parce que euh, xam nga àdduna sosul si benn bés. Mhm. donc euh, moo tax loo ci def lu baax rek buñ la ne gàcce ngaalaama sax bul bul namoo. Mhm. te ci wàll woowu loolu laay ñaax gune yi ñu xam ne métier bi du métier koo xam ne day day gaaw a gis day gaaw a beew métier la boo xam ne faw ngay. li ngay def bu sax kenn xam ne ne ne peut-être à la limite yaa koy def fii mu nekk si rajo la ñu wax man ak yow Fatou. Mm. Euh, man am naa chance par exemple jamono yi nga xam ne moom ci laay door métier bi euh, bu ma demaan par exemple sama euh, cousin si Fouta tournée xam nga taa télé yi bëriwul. Mm-hmm. boo boo bu may présenté bu ma nee man maay Mamadou Thior et après dañuy dañuy kontaan parce que duñu duñu duñ la mës a gis donc yooyu après du tax. nga def si nga xaw a beew mm. non non non loolu day day wane ne rek bon métier bi ñuy def da ngay xam liñ ni ni nga ciy demee mm-hmm. fexe bi ñu bañ la jam naa mm-hmm. te loolu loolu la ñuy yebee xale yi mm-hmm. ñu ñuy gëstu itam parce que dafa dafa li ma doon wax sànq yaa ngi dugg kër ñoo xam ne ñoo la ëpp xam donc boo Euh, fexewul ba as lëf nekk sa sa am as lëf si xam-xam. Mm-hmm. donc si si njuumte rek ngay nekk. Mm-hmm. parce que souvent li nga xam ne mooy métier bi faw ñuy gëstu saa yu saa yu ñu amee euh, jot bi rek ñu dem gëstuwaat si ay livre la si ay xew-xewu démb parce que ñun euh, ay nettalikat la ñu. Mm-hmm. donc li ñuy nettali dañ ko war a xam. ci wàllu woowu si gëstu lañ ciy gën mën a affaire bi di gën a ñoŋe. Mm. Euh, ñu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Mm-hmm. alors euh, lu ci bari nag dañuy euh, ñaawlu ay dérive maanaam ay mbir yoo xam ni journalistes yi ñu ngi koy def te dëppoowul ak yoon yéen correct yéen fi nekk ngir yoonal yëf yi ndax yenn saay mën nga ñu dikkal ci ñaxtu yi nga xam ne danay jib wutal si leen. waaw avant may ñëw si question am na lu ma bëggoon a ñëmbaas si mm-hmm. question bi sànq ci wàllu encadrement bi bi war mm-hmm. parce que par exemple. li nga xam ne mooy anciens yi encadrement bi nga xam ne war nañ ko def mm-hmm. li tax ñu war koo def mooy que ne ñi nga xam ne ñoo ñuy féete woon mag noonu la ñu encadré mm-hmm. je me rappelle anciens yi ba ñu ñëwee dañ doon jël seen temps woon ñu yoon bi euh, man ma jëlee sama exemple bi may bi may encadré RTS amoon na benn studio boo xam ne Coor FM lañ ko doon wooyee. Hmm. foofu laa doon dugal stagiaire yëpp man nga toog weer ba ñaari weer doo doo dem antenne. Hmm. parce que man damay ne ma mag mag yi defal moom laay defal. bor la bu ngeen war a fay voilà. wala boo xam ne dama ko doon fay ba mu mot sëkk hmm. parce que dañu métier boo xam boo boo gaawtoo boo moytu di nga yàqal di nga yàqal sa bopp. Mm-hmm. parce que encadrement da ngay jël temps di nga gis ndeysaan dina am stagiaire yoo xam dañuy yàqamtee dem antenne. mais mm-hmm. dama leen di wax ñoragul. Mm-hmm. da ngeen xaar bu ñoree rek di nga di nga di ngeen dem euh, bu ñorule am na ci ñoo xam ne sax bon euh, dem naa ba xool ne ñii mënuñu def rajo ma ne leen ah ay la yéwén man de gëm naa ne xam nga euh, métier tasuma xibaar. du rajo rek. mën nga defi presse écrite jéem a defi presse écrite am na ci ndeysaan koo xam ne exemple journaliste bu mag la léegi soleil parce que bu ma ko xoolee ndeysaan saytu ko ma ne ko demal nga def fi presse écrite. te mm-hmm. gis rëccu ko. Mm-hmm. après tey soleil journaliste bu mag la ma ko non rajo baat baat bi la. Mm-hmm. boo ko liggéeyee te te dem ça veut dire que ma ñëwee si li koy indi mooy que ne tey. xamuñu kan mooy kan si suñu métier bi maanaam si misaal ñun néegu si euh, taskatuwaay kër la boo xam ne amul buntu amul palanteer. ku neex waay jaar voilà te loolu li koy indi mooy que ne amul loi bu ñu tënk. Hmm. bu ma ko waxee da ngay yéemu mais loolu moo am. Hmm. parce que 2010 lañ euh, càmbaroon benn code de la presse Abdoulaye moo fi nekkoon jiitu ci boobu mu soofantal ko ba jóge fi Macky Sall yegg si. Hmm. soofantal ko lu toll si juróomi at. ba 2017 ñu koy doog a voté ay la yowin bu ñu ko wotee 2017 ñu ngi ñetti at. ab décret d'application pour ñu woy euh, euh, ñu doxal loi boobu ñu koy xaar ci ñetti at est-ce que ñooñu gëm nga ne euh, ñi ñu ñu fulal wàllu tasum xibaar lañ man damay naan déedéet parce que dëgg kan bu bu bu ko da nga koy wax man li ma gëm mooy que ne ñi fi nekk ak ñi fi nekkoon démb gëmuñu tasum xibaar te moo ne day en deux mille bi Ablaye di ñëw ay la yowén wax nañ tagg nañ fu nekk ne alternance deux mille ñoo ko indi te loolu loolu dañ koy nangu parce que c'est dëgg-dëgg. gis nañ taxawaay bañ fa taxaw dugg si lieu de vote yi jël suñu risque même métier boobu moo ko laaj. ba euh, Ab Abdou Diouf ñàkk Abdoulaye Wade falu donc euh, je pense que buñ toogee ñaar fukki at ñuy soofantal mbala ñuy euh, na nasaxal métier tasu xibaar parce que ñoom ñu naar bi xoromam dafa jot décret d'application bi nga xam ne président Macky Sall moo ko war mu signal ñu ko parce que tant amul loi. du ñu xam du ñu mën a euh, euh, ñoŋalaat suñu métier bi. Hmm. parce que code bi lu ñu ci mënti wax quand même am na ay ngëneel parce que dañ ci wax lu leer nan ngay nekkee taskatu xibaar. Hmm. mu leer nañ nan nga ciy duggee ñi ci nekk ñi fi nekk itam nan nga ciy dese am na ñoo xam ne bu ñu doxalee code bi ñi nga xam ne amuñ fi amuñ fi place dañ leen di wax ah yéen dem leen seet leneen. Hmm. donc moo tax ñuy ñuy ñuy ñuy xeex pour décret d'application bi njiitu mi signal ñu ko ñu mën a euh, commencé appliquer mm. suñu code de la presse parce que ñëpp a ngi naan booy journalistes ñoo def lii def la mais loolu liko ko indi que ne tey ñi ñu yo ñi ñu rax ñoo bëri te ñi ñu wax ñoom ñooy yàq suñu suñu suñu der. Hmm. alors ci sa lan moo tax nguur yi fi jot jaar yëpp bëgguñu yëf yi jaar yoon euh, ba tax ñu fexe code bi ñu doxal ko. waaw parce que boo nemee ko si temps oblaat am na ñoo xam ne ñu sosoon moom rek ci moom am seen organe de presse loolu itam ñàkkul si nguuru Macky Sall bi hmm. donc euh, te si euh, taskaru waa waxuma waxuma kii yenn taskaru waa am na ñoo xam ne yenn homme politique di wala ñuy yëngu ci wàllu koom dañu am seen i journaliste. donc di leen def loolu leen neex xam nga loolu mooy moy arrangé gars yi maanaam yenn saa yi da ngay ngay da ngay gis dëgg euh, toog si dëgg bi di wax safaan ba pour rek euh, lu neex nit te ci wàllu politique ci wàllu koom ak yooyu loolu nag moo moo tax ci wàllu woowu faw gars yi daloo seen xel euh, fexe ba li nga xam ne mooy code bi ñu commencé ko cëmal bu ko defee vraiment suñu suñu métier bi di tasaxu xibaar ñi nga xam ne ñoo ñoo ko yellool ñu toog def ko euh, ñu delluwaat si li woon démb atum deux mille nañ ñu doon tàggee euh, si liggéey bu rafet bi ñu def liggéey boobu ñu delloo waat ko bu ko defee loolu démocratie Sénégal moo ci gën a jëm kanam ak euh, li nga xam ne mooy askan bi nga xam ne ñoom ñooy suñuy suñuy patron parce que ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom la ñuy liggéeyal liggéey ñu kenn ku dul askan askanu Sénégal euh, bu ñu amee lu leen metti ñu waxal leen ko bu ñu amee bànneex itam ñu wax ko ba ñëpp euh, dégg ko. Hmm. alors fi ñu jeexalee mooy daan yi CORED bi nga jiitee est-ce que d'abord am na sañ-sañu teg daan ci kaw journaliste ak euh, yan daan ngeen prévoir bu fekkente ni journaliste bi jàdd na yoon. waaw am nañ sañ-sañ euh, laata code bi code bi di ñoom code bi ma la doon ñu sànq euh, daanaka amuñu woon sañ-sañ ci wàllu yoon parce que teguñ ko woon fenn ñun dañ doon def defu diplomatie maanaam waxtaan ak ñu jiite organes yi wax nañ ne nag ñun suñu liggéey pour métier bi tasuma xibaar nekk métier bu mucc ayib la te daanaka ñëpp a ci doon jàpp mais code de la presse bees bi ci wàllu yoon daf ñu dëgëral dafa. samp CORED samp CNRA maanaam ñaari kuréel CNRA moom mooy saytu organ de presse yi ñun ñun ñooy saytu ñiy liggéey si organe de presse ñun waa CORED donc euh, de de plus en plus ñun ñaari kuréel yi dañuy dañuy lëkkaloo di liggéey si lu ñuy wax ko régulation si wàllu daan ñu ñuy jël mooy que ne boo euh, comme ci métier booy def boo defee njuumte première fois bi avertissement après ñu defal la blâme boo boo boo delluwaatee mbuy bum sa mboy boy ba boo def def defaat dinañ dem nag ba li ñuy wax euh, ñu ñu ñaan commission bi joxe carte nationale de presse xam nga carte nationale de presse. Mm-hmm. mooy maanaam suñ carte mm-hmm. ñun am nañ sañ-sañ correct wax commission boobu kii kat du euh, taskatu xibaar bu baax. Mm-hmm. jël leen carte de presse bi. Euh, bi nga xam ne carte nationale de presse bi ngeen ko nangu leen ko ci moom ñu génne ko ci métier xam nga loolu musiba la donc day wone sañ-sañ bi nga xam ne correct am na ko tey ci wàllu ci wàllu daan euh, mais loolu day fekk mu nekk koo xam ne quand même dafay def def defaat euh, bon ay ñett ay ñett ba ñeenti yoon yoo xam ne kii quand même dañuy naan euh, da koo da koo ma jërëjëf Mamadou Thior ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon mbégte mu rëy dalal la ci matinalu réew mi tey fàttali ni yow yaa njiital CORED conseil pour l' observation des règles d' éthique et de déontologie ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm di la sant Fatou.